waaw kay asalaamaaleykum dafa am ku fi doon laaj euh, ci jamono yi ndax lu ñuy wax nuyu jigéen dafa xaraam nuyu jigéen dafa xaraam mbir la moo xam ne yàgg nañ koo dégg ñun ñii daanaka loolu la jàngaloon bu njëkk ba am na ci sax ñoo xam ne dem nañ ba yegg ci ne maanaam loxo bi nga xam ne day nuyu jigéen loxo boobu dagg ca war ñuy wax ne loxo boobu loxo bi dem safara la te diine yaakaar naa léegi euh, ñi nga xam ne dañuy topp waxtaan yi nga xam ne ñoo koy def am na ci loo xam ne war nañ ko mën a comprendre fu mu toll nii mooy wàllu xaraam moom dafa am benn règle bu simple boo xam ne moom lañ ciy wax loo xam ne yàlla moo ko jàngale ku dem ci suratul anaam ku dem ci suratul anaam mi surat six dem ci aaya cent dix ci biir aaya bi yàlla dafa wax ne waxad fassala lakum maa xarama alaykum yàlla dafa wax ne faram-fàcceel nañu li mu araamal ci ñun yàlla nag su ne faram-fàcceel nañu li mu araamal ci ñun kon lépp loo xam ne nit dafa wax ne dafa xaraam rek day war ci moom mu wane fan la ko suñ borom faram-fàccee fan la ko suñ borom araamalee ci boppam te loolu ñuy wax nuyu jigéen wax dëgg yàlla su ngeen fàttalikoo ñun am na ay jamono ñun ñii bi ñuy gën a doon ndaw am na benn débat bu fi amoon yaakaar naa ci ku ñuy wax Sidi Lamine Niass mosoon na fee wax lu mel noonu mu juróon ab mu juróon ay wax yu bare bari daanaka nit ñi doon dal ci kawam ci wax boobu mu waxoon ci wax boobu mu waxoon ne maanaam comme li ñuy wax nuyu jigéen a araamul nga xam ne lu ne déggoon na ko ci ci jamono boobu man mii sataanoon naa ñu bari doon ci wax doon ci wax ay wax yu xaw a tàng sax te lam doon wax it wax dëgg yàlla ña nga xam ne ñoom ñooy wax ne dañ koy weddi it euh, suñ koy weddi duñ sukkandiku maanaam ci li nga xam ne moom la yàlla waxal boppam waaye yeneen yi wax lañuy indi ngir di ko bëgg a layalee loolu te wax dëgg yàlla diina ji ku ci yeewu xam ne yàlla moo ci daganal yàlla moo ci araamal yonent bi sax amutoon pouvoir boobu ci diina ji te it ku dem ci sootu naxli muy suurat seize dem ci aaya cent seize di nga fekk suñ borom di wax ne wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba hada xalaalun wa hada xaraamun li taftaru ala allahi alkadiba mu teg ci ne inna alladina yaftaruuna ala allahi alkadiba laa yuflixuun mu wax ne bu leen wax li seen làmmiñi di melal ci kàcc di wax naan lii dagan na lii xaraam na ngir sosal yàlla ay kàcc yàlla mu ne gaa yi nga xamne dañuy sosal yàlla gaay yi nga xamne dañuy sosal yàlla ay kàcc duñu tonawu te yàlla yit deug deug waxna ñi nga xamne ñom ñokay sosal ay kàcc ñoy ñan moy lim mu wax ne inna alladina laa yuminuuna bi ayati llahi batay mu ngi nek ci suratul nahl ay ki ci surat 16 innal ladhina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa lahum azabun alim mu teg ci ne innama yaftari l kadiba alladina laa ne bi ayatillahi wa ulaika humul kadibun yàlla dafa wax ne dëgg-dëgg gaa yi nga xam ne gëmuñu ay yàlla yi yàlla du leen gindi te ñoom am nañ mbugal mu metti yàlla teg ci ne ci dëgg-dëgg sax ñi nga xam ne ñooy sosal yàlla ay kàcc mooy ñi nga xam ne gëmuñ aaya yàlla yi te suñ borom mu ne ñooñu ñooy kàcckat yi xam nga yàlla su fekkee dafa wax ci téere bi ne moom faram fàccee nañu li mu araamal ci ñun ay nit di ñëw di jàngale ci seeni téere bu yàgg ay nit di ci toppaat di ko baamu di ko wax wala ay nit di ko bindaat ñoom it jëlee ko ca ñooña te fekk na loolu ay sos yu ñu sosaloon yàlla la di wut ay mbir yu ñuy daganal ak ak ay mbir yu ñuy araamal ci diine yàlla te daganal ak araamal doon loo xam ne yàlla képp a ko jagoo yonent bi sax amu ca wàll ay nit nag ñëw di ko def ñu gëm loolu jàngal ñu ko bu yàgg boobu ba léegi ñu jàppee na loolu mooy dëgg te loolu saxul te loolu ay kàcc la yu ñuy sosal yàlla te li ko waral mooy ñàkk gëm aaya yàlla yi yàlla su nee faram-fàcceel nañu li mu araamal ci ñun ay nit di ñëw di wax ne nàngam dafa xaraam ci diine yàlla te soo leen laajoon loolu ana fan la ko yàlla xaraamalee cib téeréem duñ la ko mës a wan kon ngeen gis ne loolu dëgg-dëgg loolu jafe-jafe bu mat sëkk la maanaam lu ñuy wax nuyu jigéen dafa xaraam loolu ay nit ñoo ko saxal waaye nekkul lu yàlla saxal amul kenn ku la mën a wan benn aaya bu yàlla waxee na jox loxo jigéen dafa xaraam damay wax ne yàlla moo bind nit te moo gën a xam nit am na ci vidéo bi ñuy wax ci wàllu muuraay maa ngi ciy wax loolu am na ñaari aaya yu nekk ci suratu nuur ni surat 24 aaya 30 ak aaya 31 damay wax ne yàlla moo bind nit te moo ko gën a xam deug deug li nga xamne mo meuna jur yenn jafe-jafe yi yàlla mom dako tere fofu dako tere yàlla dafa wax ci ku dem ci suratul nur mi surat 24 ayat 30 dafa wax ak nitu gor yu gëm yi wax yonent bi nako waxal ne xul lil muminina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ci aya ba ca top lan la ca tek ginnaaw bi aaya boobu jeexee mu waxat ko ne ko wa xul lil muminaati na min absaarihinna wa yaxfadna na ba fa aaya boobu it yem yàlla li nga xam ne moom la tere nga xam ne moom la wax yonent bi na ko wax way gëm yu góor yi mooy nañu damm ci seenu gis waxul seen gis comme ñu wax naan ay comme maam xool la ñuy tere yàlla waxul sa xool de xam nga xool ak gis du benn nit ki mën nga maa mën nga jàkkaarloog benn mbir di fa xool te fekk ne gisoo ndax sa xel mi mu ngi feneen waaye yàlla ak gis la wax nga gis yàlla ni muy jàngalee ak terme yu précis yi nga xam ne moom lay tudd wax na xul lil muminina yaxuddu min absaarihim yàlla wax yonent bi na ko waxal way gëm yu góor yi nañ wax waxal way gëm yu góor yi ne nañu damm ci seenu gis nañu damm ci seenu gis waxul seen gis yépp waaye ci seenu gis may leen loolu la nit ñi waroon bàyyi xel lan moo tax yàlla tudd gis waxul ay joxe loxo wala nangam ndax may leen jox loxo ku ñëw ba yegg ci yow nga koy jox loxo ku ñëw ba yegg ci yow ngay jox loxo may leen waaye ak gis nit mën ngaa toog sa buntu kër su dee góor jigéen jugee fee di ñëw di ñëw à trente mètres nga jël sa teg ko ko muy ñëw nga koy xool di ñëw nga koy xool mu ñëw ba yegsi ci yow nga xaw a sëgg ngir ne kersa <laughs> mu romb nga jëlaat sa bëri tegaat ko ko ba mu mataat trente mètres ca kanam waaye loolu kay moo gën a garaaw te loolu moo ëpp jeexit ndax mën nga toog ci benn waxtu boo xam ne yow kese yaa toog la nga gisoon sa xel mi di la ko indilaat nga nekkaat ci di ci bàyyi xel maa leen yàlla loolu la jàngale loolu mooy li gën a garaaw te loolu est-ce que nit ñi ñoom ñoo ngi koy bàyyi xel. néew na ñuy taree nuyoo ak fi jamono bi toll nit ki mën ngaa nekk sa néeg tëju jël sa téléphone jàkkaarloog loo xam ne moo gën a garaaw fuuf loola fuuf moo tax yàlla li muy tere dafa leer yàlla ay waxam moom moo bind nit moo gën a xam nit lami muy tere lu leera leera leera a leer leer a te kenn ku ci ne mën nga xam jeexit yi muy def ci yow ak gis ni mu mën a defee nit ci ni mu ni mu mën a defee jeexit ci nit dégg sax mën na bañ a demee noonu moo tax yàlla wax ne xullil muminina yaxuddu min absaarihim te nim mu ko waxee ci góor ñi doon looko ko waxee ci jigéen ñi wax na wa xullil muminaati yaxuddu na min na kon yàlla njàngaleem dëgg-dëgg foofu la nekk kon yàlla dafa xaraamal maanaam góor bi jox loxo jigéen loolu moom wérut amul benn aaya bu koy saxal adduna du yàgg ba kenn indi la ab aaya bu koy saxal loolu moom wérut li yàlla tere mu ngi noonu ci vingt quatre trente trente et un kenn ku ci ne yaay dem vérifier ko nit ñi dañuy jël ay détails maanaam di ko nu tudd di ko jàngal nit ñi nit ñi dem ba ragal loolu ndax wax yañ cay wax dagg ca war ak loxo boobu safaral la jëm ak nangam nangam te man damay wax ne maam nangam gi safara la jëm wala nangam gi àjjana la jëm lum ci mën a doon lu ne borom àjjana ak borom safara ñoo ko war a wax. lii yóbbu nit li yóbbu nit safara borom safaraa koy wax lii yóbbu nit àjjana borom àjjanaa koy wax boroom àjjana lu mu waxut ne lii dana yóbbu nit àjjana keneen ku mën a doon ku ne munu koo wax borom àjjana lu mu waxul ne lii dana yóbbu nit àjjana ku dul moom waru koo mën a wax borom safara lu mu waxul ne lii dana yóbbu nit safara ku dul moom waru koo wax ndax ku moom da ca amut dara ku dul moom amut dara ca àjjana ku dul moom amut dara ca safara loolu moom domaine am la kenn fekk ko ca kon dëgg-dëgg macha allah mbir yi noonu la demee kon kenn ku ci ne mën na bàyyiwaat xel loolu jàngataat détail yooyu ndax ay mbir la yu fi yàgg lool ñu gëm gëmloo ñu ko ñu gëm ko jàppee ko diine te fekk na wax dëgg yàlla macha allah dara boolewu ko diine jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum